asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu maa ngi tudd Ndiougaloo di secrétaire particulier bu Serigne Khadim Lo Gaydel ibnu Serigne Moustapha Lo Modou Issa fii ci Touba Bagdad Thiès Sénégal mbokki àddina bi mbokki réew mi mbokki dëkk bi muy fii ci fii ci Thiès ñoo ngi leen di nuyu ci baat bi gën a tedd di asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di jaar di leen jox mbooleem wàccuwaay yi nga xam ne am ngeen ko ci mbooleem kilifa yi nga xam ne bokk noonu daje ci réew mi di tàmbali nuyoo beeg siyaar ñaanal bi ci nga xam ne mooy Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñi nga xam ne mooy xalif général bi Mouride di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak waaye di ko ñaanal it mbooleem xalifa yi nga xam ne ñoo tënk mbooleem turux yi ci réew mi di leen ñaanal sunu boroom yàggal leen waaye it ndamal lislaam bi nga xam ne réew maa ngi koy séentu ci ñoom sunu borom defal ci leen ci lu kawe seen jort di nuyu ak ki nga xam ne tey jii toogaayam la ñu toogee ci kàdd yi ñuy yëkkati muy loo gay Lo Gaydel ibn sëriñ Moustapha Lo Modou Issa nga xam ne jotaay tey bi dara warul ko lu dul xew-xew yi nga xam ne bokk nañu dégg ko fi ci Baxdaad muy ay yëngu-yëngu yoo xam ne. ah gis nañ mu xew fi démb ah réew mépp bokk jot ci ñu bëggoon a indi nag ay leeral def déclaration ci loola ñépp xam la ca nekk ay taxawaayu sëriñ bi ci loola waaye it mën ko indi ci anam boo gën a gën a wér kon nag gannaaw nuyoo yooyu it ah mbir mi ku ne xam ne ne li ko sabab lépp ah, lii ñuy wooyee Jakarta soo ko jëlee baat bi yëpp ak doxin wi yëpp dafa tënkuwaat ci moom. mbirum Jakarta nag ci fii ci Bagdad ci bi nga xam ne moom Serigne Khadim Lo Gaydel sanc mel na ne lii ñuy faral di tuddee arrêt muy ñoom fu ñuy faral di ñaare di fa dajee nu fa dajee di fa xaari client di jugaat di dem di sëñ bi sancee ba Jakarta yi dugg si ci dëkk bi fii lafu nii rek ci wet gi nga xam ne mooy ci anglu kër gi jekk-jekkoon nañ ci doomi dëkk bi benn ñaar ñett di fa tàmbali di daje loole bi mu amee a ah, ñu koy def di koo def ñoom di fi xaari client di dem ko a dikk loolee dem ba jur ñoom ci seen biir yëf yi di bëgg limu waaye ci biir limu goog it ñu toog xool yëf yi ne lii it mi ngi am na mu melokaan bu mu bëgg am te ko xam phénomène ni Jakarta danaa ci dellu si ah, ni ñu ko gisee ci réew mi ci lu baree baree baree bari bari bëri ñaareelu cee laxasu te loole ñàkk mën a ànd ak barab bu ñu mel hmm. loolee tax na nu xool ko waxtaan ko ba ay jamono ci gannaaw am ñenn ci ñoom sol seen daal ne ah lii de nan dem ñaan ko sëriñ bi ah mu may ñu ko ba ñu mën cee toog mën cee yëgum njaboot gépp loole bi mu amee ñu ñëw waxtaan ceeg sëriñ bi fii ma toog nii tey bis boobu fii la leen fekk sëriñ bi xamal leen ne man de maa bokk njabooti ñëpp lépp lu waay di def rek bu ci njub nekkee te la muy defit méngoog ni dëkk bi di doxee su boobaa gisuma ca benn jafe-jafe kon nag na ngeen toog nekk fa waaye bu ngeen fa nekkee it ngeen nekk fa ci melokaan yi gën a yi a yi gën a rafet loolee bi mu amee yëf yi dox na dox ab diir léeg nga dox ba ci yàgg am loo gis ci biir ndax sëriñ bi it ah nun nooy tànkam ci biti it nun ak ñii toog sunu gannaaw ak mbokki taalibe yi ak mbokki dëkkandoo yi léeg-léeg ñu seen loo xam ne du ca gën waaye suñu rakk la nu nu toog waxtaan ak ñoom ci loo xam ne dañ koy def suñu initiative bu bopp ni ko tubaab di waxee ne leen lii kat bokku ci te fii laaju ko ñu waxtaan ba jël lépp teg ci suuf wéyalaat waaye mu mel ne yooyee day doon sànqar ci biir rek toog ca tëcaa tëcaa jug ba yéen ca mujj seetlu yëpp it mujj doon jafe-jafe yoo xam ne lii moom ku toog xam pas-pas bi tax sëriñ bi bi muy sanc dëkk bi mu sañc ko di nga xam ne ni lii moog lii mënul ànd bokk na ca yaa ngi cay seetlu Euh, yoo xam ne dem nañ ba mujj gi mbirum sécurité bi ci kër gi sax ndax ku ne xam ne ne li lafa ci ñoom jëm si ci euh, ci buntu kër gi lu fi waay yor ñaari ci mboto sax te dëkkee ci ci doxukaay yi ñaari tànk yooyu da ñëw ba ci wetu kër gi jaare ko fi dem sa kër ba dem ca fa nga ñëw boo xëyee jëlaat ko liggéey daan dana jafe-jafe waaye mujj gi am càcc ne ca biir ak yoo xam ne boo ko toppee ba toppaat ka mbir mi day nekkaat jooxaat ci seen biir hmm. waaye yit nga xam ne day doon yu yoo xam ne ah dee su ko mën a tuddi dem ba ca biir mu cay laxasu yooyu yëpp di ca feeñ waaye léeg-léeg nga yëg yoo xam ne it danay dox te àddina xam ko it kilifa yi di ko saytu ba gis ne xeetu sene bare ki dorog yooyu sax day laxasu seen biir ba mel na yëngu bi bi muy am sax bi ñu doxee ba jénn ci yenn yi defaat nañ ci benn arrêt bu nekk ci kaw bopp bi def euh, ab saytu ba am sax ñu ci yóbbu fekk yooyu ci ñoom loolee nag bi mu amee sëñ bi xam ne ndax moom it yëppam du ko boole ki wax waaye dana toog di saytu ba yëf yi doy ko mu gis ne lii moom lii la mën a laaj comme bi mu koy def ak camion transporteur yi nga xam ne biñ fi bokkee daje sëñ bi bàyyi leen ak yëpp ñu koy gaare ay camion kenn du fay dara waaw ñu dem ba ci biir yoo xam ne kenn mënu ko mën a àndanteeg ci bala bu selleen yi sëriñ bi ci la xëy rek ne leen nag wax dëgg yàlla lii gannaaw mënta demee ni nama camion yëpp abal lu mel noonu it moo ko dal ci jakartaa yi waaye tombeeg ñu jëm ci gàmmu gi mu waxtaan ñe colonel bi euh, nu mu tuddati bi nga xam ne moo amee woon liggéey bi sëriñ bi ñoo ñu waxtaane ko ñu ne ko kat fii sax ñoom ñu nekkee daanaka yëf du mën a ànd ak gàmm gi sëñ bi ne ko waaye man damaa décidé woon sax ñoom ñu ñu abal ma fii rek te wut ñoom fu nu lafu foo xam ne du am wenn ngaañ ci ci doxalin bi loolu ñu def ko ci njëkk ak teraanga ñoom ñu dem ñu dem lafu lafu ci wet loolee nag ci biir lafu ci wet googu nag euh, danaa ci danaa ci danaa ci danaa ci dellu ci boo xoolee mbirum kaaraange gi ci biir dëkk bi ni nga xam ne noonu lañ ko noonu lañ ko bokk bokk dëkkandee nga xam ne ci biir dëkkandoo yi léeg-léeg sax di nga gis ko sol dàllam léeg sëñ bi bu ubbee yenn jotaay toog nii mooy xaw a yaatu ci moom ñu ne ko ah sëñ bi nangam kii kat ci mbirum jakartaa yi sëñ bi kat doxalin wii ci mbirum yi sëriñ bi kat nii nii rombee ci buntu kër yi ak xale yi sëñ bi ci nangam sëñ bi ci nangam sëñ bi ci nangam agression yi xaaju guddee ay yu nekk yu nekk yu nekk yooyu yëpp bokk ca daje ba sëriñ bi loolee lépp tënkuwaat ci moom ba mu mu doon mu doon lu mu lu mu bàyyi xel ci wàllu dëkkin bi nag amul kenn koo xam ne yaa ngi dëkk Baxdaad gi sa pàkk bi nga dëkkee jëndloo ko sa bopp mu lew la doom ku ne fa nga dëkk yaa ko jënd muy sa yëf nga moom ko mu lew la doom waaye ci biir dëkkin woowu nag dëkkandoo yi ban jëndee ba noppi ah noo bokkaat daje ne sëriñ bi yaay kilifa gi xëy na loolu ñi ne féete ci wàllu biiru dëkk bi daanu ci mën a indi ci jamaa bi nga xam ne sëñ bi defoon na ko fi dajale ñun ñëpp nga xam ne benn xaajaloo amul ci biir dëkkin bi du xaajaloo bu ñuy xaajale ci biiru pas-pas duñu xaajale ci wàllu diine duñu xaajale ci dara waaye ba loolu amee euh, loolee ñoom ñëpp it ñu gis loolu sëriñ bi noonee lu ko ànd dundee ak ñoom waaye biñ ko jiitalee it sëriñ bi boole uuf ñëpp kon ñu xam ne Baxdaad li fi am noonu ma ko waxee rek noonee noonee la bindee waaye nag ba ku nekk ci ñu nit moomee sa barabi bopp jënd ko ci sa alalu bopp jolo lew doom kenn fekk siwle ci ah léegi-léegi yaay xool it xam ne jumaa jii fi nekk ñuy jàkkaar loolu orma jii la laaj nga jox ko du ñàkk it ay rëcc rëcc yu am ñuy jubbantee ka naxante ngir loolu mën a tegu ci aw yoon waaye loolee yaay toogaat ba gis ne sax yow ci sa bopp worma ji ak kilifa gii kat tooguma di xaar ci sama bopp ñu ma ci soññ wala di ma ci wax dara waaye xam ne lii la barab bi lii la barab bi laaj mboolem xew-xew bu fi am nag moo xam xew-xew bànneex la moo xam xew-xew naqar la waa dëkk bi yëpp ñoo koy jóg di ko bokk di ko ànd amul benn xew-xew bu ma sa am fii ci Bagdad bu ñu jur taxaw ne Serigne Khadim Lo ma ngi koy tere amul dara nu sekk xew-xew yi defee ko nan ko war a defee bu nu ko yëgee ñoom imaam yi nii toog jug ànd koog saaba yi nga xam ne ñoo toog di fekk Serigne fu mu nekk di ko àndante moom di ay tànkam di jëmmam di léppam ñu bokk ànd taxaw yooyu ànd ko dëkkandoo yi ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoo tënkuwaat ci jamaa bi ni ma ko waxee woon léegi ba loole lépp mën a mën a mën a rafet kon nag loole lépp tey jii mooy doxalin bi nga xam ne miin nañ ko ci dëkk bii ñu baaxoo saa su nekk di ko def waaye di ko defee nag ci anam anam yi gën a rafet waaye ci biirum xew-xew léeg-léeg nag ah ñu jege barabu jumaa ji baa jege barabu sëriñ bi bëgg a def loo xam ne kat xëy na loolee war na noo séntukat ne woor ma ji laaj na ñu gën koo dolli. sëriñ bi yoonee ab soññ nekkat sabar yii kat kuréel xasida yaa ngi ne tege lii nan ko teggi jékkul fii méngoowul fii am na ñu ko fii def waaye buñ koy def ñaari nga seen leen ñu dandu dem kenn lijjiwtu leen kenn lijjantiwu leen waaye lu ko dan na ñëw jege jumaa ji nit sa xanaa waru koo xalaata def baa nga def ko ci lu mel ni ay xeeti musique yu ni mel nii tey jii Serigne Mountakha di ko doxalee biir tuubaa ñun gis lu baax ni mu ko joxe Baye Fall yi ñu di ko doxal ci Touba googu loolee amul fii ndax fii biñ ko bokkee dëkkit sëriñ bi bàyyi nañu kat ñun ñuy doxal ku ci nekkit mu bàyyi la ak sëg ndax dafa ñëw sanc dëkkit te li ci ëpp ci dëkkandoo yi li mu fi dëkkee seen cofeel gi ñu am seen diggante ak moom moo tax ñu daw dëkk bi sëriñ bi nag ne leen dee leen ma bàyyi xel ci ñoom ñeeñee ndax ay borom yi cofeel rek ñoo nekk ñoo nekk ci ñoom sëriñ bi doo koo xam ne nag soo ko nattaatee ci biirub lislaam bi ak yaatal rek a ci nekk ndax dinga nga fekk mbooleem turux yi li ma ko wax léegi saalam bee ci boo ca jàllee amu ci xaaj amu ci seen ci tariixa boo xam ne da ñëw dugg si fa xalif généraux ba fekkoo ko moom sëriñ bi ñu àndum nataal ci at yi mu am waaye ànd koog jom ji ma ko àndee waaye wóolute kilifteefam yi dalee ko ci Cheikh Saliou Mbacke wàcc ba fii tey ji ñu toll nga xam ne li ko ci sëriñ mun Muntaxa di taxawu taxawluloo ak yooyu yëpp lu yaatoo yaatu la te tam ko ci ndigalam kon nag yooyu ñu xam ne loolu moo fi bokk daje ummal islaam bi fi toog buñ fi toogoon léegi bu lii xew fi da nga gis shérif bi toog nii ci wet gi da nga gis taalibe Cheikh Ahmed Tidiane bi toog nii ci wet gi da nga gis taalibe cene bi ba ci màggalu Cheikh Abdoulaye Yaqin bi taalibe cene ba sax fekk sëriñub cene ba sax fekk na ko fa ñu bokkub jataay bokk la ñuy def di ko di ko doxal di ko méngale ci anam yi gën a rafet te loolu lépp di ndamal lislaam waaye buñ dikkee ci ki fi dëkkaat ci dëkk bi di am murit nag kooku da ngay gis ne kooku moom ak uuf sax la sëñ bi am ci moom uuf ndax uuf gi mu am ci moom kookee dafa doon koo xam ne fa mu fa muy siyaar foo ko ci mën a natt ci biir yoonu murit diggante sëriñ xaadim loo gay dal akub sëriñam ñaari da a boole benn bi muy cosaan wa ilaa muy deret cosaan boole ne leen wala deret boole na leen kon ñooñu ñëpp koo ci natt sag njaboot gi nekkat fii ci Baxdaad di di fi yeewoo sëriñ bi da leen a xool ñuy ay taalibe mu xool leen njabootu boppam uuf leen waaye uufal leen Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul loolee nag jur na am na bis boo xam ne sax bis am na fi boo xam ne bi mu am yëgu ko fekk na ko ci tawat ju méttee métti waaye boobu mbokki taalibe yooyu guddi ajuma gi ñu doon def yaatu na yaatuwaay goo xam ne foo ko natt diggante bee ba ci buntu kër gi mbooloo mi day agsi foofu ànd koog yëngu bu am solo mais ànd koog bàkki xiin yu am doole te boobu loolu diis na ci moom ci tawat waaye bi ko laajtee ñu ne ko nangam la sëriñ ba leen daal laa leen yóbbante ci ñoom ne leen nan ma ñaanal kon nag loolee mm-hmm. mooy liy dox fii sëriñ bi mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi nekk fii ci wetam ak uuf la am ak ñoom hmm. te loolee daf koo dalee daf koo dalee ci kilifa yi dama ko waxee léegi bu yàggul matagul ñaari semaine bokk naa ci ñi nga xam ne jot nañu moom jotaay ànd ko ak moom ak ñenn ci kilifa yi ñu def jotaay ak ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur waaye jotaay bi sëñ bi def ak ministre l'intérieur li ci doy waar mooy lépp loo fa dégg sëriñ bi yëkkati ko wax ko bu doon lu nu communiqué par voie de presse la lépp lu mu fa yëkkati di ko wax benn mbir rek ko tënk muy développement dëkk bi ñu nekk nan la dëkk bi di yokkoo ba fii ngeen toll yii ñu jënd ci gàmm jënd ko ci yeneen travaux yooyu moom ngeen fekk ci poste yi ñu koy def di dolli courant yi dëkk bi ndax fii bu ko sëriñ bi soog a sanc bi courant bi egsi fii ci dëkk bi ku ne xam ne ne foofu soree leen ko jëlee woon di dëkk ndax dafa am slogan boo xam ne dafa mat di fàttali ci pas-pas yi boppam mu faral di ko wax bi muy sanc fii suñu borom wër sëgalee na ko ba mu demee dëkk ca taax ya gën a gànjaru muy lu mel ne aldemi almadeeg yu ni mel waaye nee na booba yéeneem ak pas-pasam mooy fekk fu dara néew mu def fa dara takk fa laxasaayam jublu fa boroomam ñoŋal fa aw jaamu yàllam waaye bu loolu yeggee it ñu ko jege muy taalibe di soppee di dëkkandoo la mënoon a yeex ci ñoom ci li ñuy wooye facteur de développement nga xam ne nit da koy mën a soxla ngir mën a suqaliku yooyu mën leen yomb ndax bu boobaa moom kat loxoom mën a jote fu seen loxo jotuwul ba loolee kat mën a jur ah loolee gën a gaaw moo tax ku ne gis ne courant Baxdaad bi ñëwam lu gaaw a gaaw la ndoxum Baxdaad bi am ñëwam lu gaaw a gaaw la waaye bi muy ñëwit gis nañ ne robinet bii dañ koo njëkk a tiiri indil ko ko ci lu gaaw waaye bi mu accès da koo tëj ràpp na ñun ñëpp ca teen ba ba dëkk dëkkandoo yëpp di am am ndox tali biit ku ne xam ne ne dëkk mark na Baxdaad ay téeméeri at te nii fi bi dugg see demee demee demee demeewul noonu kon ñu xam ne Euh, loolu fi sëriñ bi bàyyi lu xel ci développement beeg dëkk bi dëkk bi rek a ko ñor ak lu ko jëmal ak lu ko jëmal kanam ay kilifa sax ci wàllu urbanisme beeg yu ni mel toog na ñoom moom jataay waxtaan fii audience yoo xam ne ñooy bi ñu accès maa leen ñu yegg ci salle audience bi ñu waxtaan ak moom jataay yooyu bi muy am waxtaan ak ñoom moom lu bari ndax ku xam ne Bagdad booy dugg ci ci entrée bi xam ne dëkk bi côté boobu ci wàllu lotissement dafa des xat na xataay boo xam ne dëkk bi dal na président de la république dëkk bi dalal na xalif général ndax xalif général bii bu bu bu bu bu bu Njaasaan di maam bu ca jamonoom sol naw dàllam ak si sëriñ bi di sol fii dàllam di fekke ku ne xalif généraux bu ne sëriñ bi di la fekk si réew mi ndawal xalifa généraux bu nekk di ko fekk si fii kon loolu lépp buy jàll si fii waxuma laak nag ministre yaag ya ci ajuwaat ci wel yooyu yëpp mbedd mi xam na ci waaye ñooñu ba ndikkee sax di xalaat naan sëñ bi yàkkali geeg xool ñenn ñi nu ñu leen def ak lu ñu leen ndàmpaay sax ba ci leen ñeewenteem jàll na si loolu ndax bis bi njëkkee def jotaay fii ci pénc mi kuy njabootam bis boobu nga jëkk a dégg loolu mu ko loolu président de la république maître lay Wade ko mosoon proposé bi hmm. ne ko fii de ah bàyyi ñu jox la lépp rek ñu terrassé ko jox la nga dagg ko jox taalibe yi sëriñ bi ne ko déedéet njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk wëllëre yi daw si dikk koj koj yi ba yor dara am ko ca def ko ci terrain jékki-jékki yëg ne maa fi nekk ñu daw gaawante daw dikk si ñooñu ñeewante naa leen rek waaye kon nan ànd dox ñi mu mel kon kooku yërmande ji nekk fi moom moom la ñu andul ñëpp ba dëkk bi àgg fii mu tey ñu jumaa ji li fi nekk ci ay toxawaay nekk fi ci ab liggéey ñu eh, ñaan yàlla suñu borom yeggale ko ak jàmm mu nekk ci ci pas-pasu boppam ak pas pasu njaboot bi suba ngoon guddeeg bëccëg yitte mooy jumaa ji ndax day ndamal lislaam waaye day sémbalu dëkk bii mu sanc nga xam ne bi mu fi agsi metti woon na lool bi muy dëju it metti woon na lool waaye ku ne xam na ne pas-pas boo ko ci dojoon mooy lu mel ne lii ci lislaam mu yeggale ko jox ko lislaam ñun ñëpp ñu bokk ànd ànd di ko jariñoo